moo ko ëpp doole sëñ Mahamadan ak mouvement MAP gàcce ngaalaama yéen ndaxte ñëpp xam nañ ne li seen mbokku Amadou Ba mbokku deret moo leen boole ngeen xam ne mbir mi toll na foo xam ne seen mbokk moo soxla ngeen bàyyi li ngeen di def ñëw fas yéene fii taxal mouvement boo xam ne musu ñoo ànd ak APR musu ñoo jàppale Benno Bokk Yaakaar Mahamadan ñëw tey sapp mouvement bi ngir Amadou a gañe fii ci Touba boo leen ko gisee xam ne du politicien boo gisee Mor Lo wala Matar wala Basiru mën nga wax ni ñuy ay politicien lañ waaye man kanam yii ku leen gis xam ne borom mbokk nga nit ku baax nga nit ku yiw nga ndaxte jënni jëfi politique ñëwee ñu boole ñu nga fas yéene ñun ci liggéey bi nga taxawal sa mouvement dama ne la nga gën a dëgëral sa mouvement yow monsieur Sall ngeen dem waxtaan ak mbokk yi waxtaan am na jàmm ndax ñu mën a fal Amadou Ba au premier tour. lancer mouvement nag yomb na waaye boo jógee na la jaral lu ne. waaye ñoo lay dalal jàmm ci APR lii premier ministre dana ko yëg te ñoo ngi wax premier ministre nu mu gën a gaawee mu recevoir mouvement bi jàppale leen ndax ñu mën a dem tàmbali seen liggéey te luñ ci mën danañ ko def ndaxte lii nekkul caaxaan lii nekkul yëfi foyee kay kon boog sëñ Mahamadan wax ji mën na bàyyi ndax doyen moo wax na nag di la wax ne jox nañ la loxo jox loxo mouvement bi yëpp benn objectif lañ am te gëm nañ ne mouvement bi am na lu ñu ci mën a participer mooy ñu fal Amadou Ba au premier tour ndaxte réew mi duñ ko dénk ñoo xam ni ay toppalekat lañ réew mi mënuñ koo dénk ñoo xam ne ay naxe lañ réew mi ñoo xam ne mënuñ koo dénk ñuy ñëw Touba di ko taal mënuñ mënuñ ko duñ koo nangu kon bokk na ñëpp yeewu ñu xam ne destin Sénégal moo ngi ci loxo Amadou Ba moom moo nekk candidat boo xam ne mën na defar réew mi te dëggal na sëñ Mountakha ndaxte waxtu wu ne moo fii ñëw di diisoog moom lépp li mu war a def kon boog Mahamadan félicitation ñoo ngi lay félicité di la encouragé di la dalal jàmm di la wax ne doo wér ci combat bi danañ ànd ak yow ba fal Amadou Ba ñu fal la nga am ndëmal tànk incha allah bu soobee yàlla di sant ñëpp di gërëm ñëpp bu loolu jàllee madame la représentante de la première dame Aïssatou Bili Ba ñoo ngi lay jox sa wàccuwaay di la wax dalal jàmm fii ci Mbàkke euh, ñu ngi lay xamal ni mouvement bi di MAP euh, dara yitteelu ko lu dul au soir du 25 février 2024 ñu porté Amadou Ba à la tête de la magistrature suprême. Euh, demee ñu ngi lay yóbbante ci première dame ne ko suñu engagement c'est sincère suñu engagement c'est total suñu engagement dafa ànd ak détermination pour ñu porter Amadou Ba à la tête du Sénégal madame la représentante euh, ñu ngi lay xamal ni MAP mooy mouvement en avant mouvement Amadou en avant vers la présidence mouvement boobu nag dafa intégré benn plateforme bu mag plateforme boobu suñu camarade suñu frère Abdoulaye ñaan mooy président bi ñu intégré plateforme boobu marqué ci suñu adhésion totale avec sincérité pour ànd ak la camarade Abdoulaye Niane Fall Amadou Ba kon yéen bu ngeen demee ngeen xamal président Abdoulaye ñaan ni ko Dan Mboup engagé na Dan Mboup adhéré na ci plateforme bi pour ñu ànd Fall Amadou Ba euh, bi ci des mooy euh, yéen ñi fi ñëw yëpp euh, gis nañ seen engagement gis nañ seen détermination ñu ngi leen di sant di leen gërëm euh, fas yéene ànd ak liggéey bi euh, takku fal suñu camarade suñu président Amadou Ba euh, fi may daanale mooy ñu xam ni la camarade Dan Mboup c'est un de vision Dan Mboup c'est un homme d'action Dan Boub c'est un fédérateur Dan Boub c'est un homme de défi te incha allah bu ñu toppee ci ginnaawam bu ñu ànd ak moom mu jiite mouvement bi ak ci biir plateforme bi fi ñu bëgg a àgg danañ fa àgg incha allah. yow nag sëñ Dan sama mag nga sama xarit nga sama lépp nga kon man foo ma woo dama lay wuyu di nuyu honorable Matar Diop mi fi jóge léegi ak Serigne Mor man ku ma woo ci mbirum président Macky Sall ku ne xam na ne lu ma sawar lay doon man 2008 ba léegi maa ngi ànd ak président Macky Sall man mosuma nuyu président Macky Sall mosuma nuyu soxna Marème Faye Sall waaye suba ba jant bi so lu koy avancé rek man ci loolu laay xool man bañ na ko ba panel yi sax am na yenn vocal yoo xam ne duma ko diglu ndax bëgguma dégg lu ma naqari ci moom su ma sañoon lu ma neex rek laay dégg ci moom ah may xamal euh, ñii fi toog man biñ ne président day bàyyi day joxe dama na yàlla nay Amadou Ba kon bi yàlla dogalee te muy Amadou Ba yàlla nay suñu président ci barke Cheikhul Khadim soxna Bili maa ngi koy nuyu bu baax te di ko siyaare gisanteegul nag yàlla dogalugu ko waaye maa ngi ci ginnaawam tey maa ngi ci ginnaawam suba maa ngi ci ginnaawam ëllëg nan ñaan yàlla le 25 février balaa une président Amadou Ba gagné carte gi mu jeex man sëñ Dan du ma ànd ak ku ragal man sëñ Dan ku ne xam na ne man du ma àndal ku am defet man 2008 ba léegi maa ngi ci parti bi dëpp dekkal ngor ba léegi maa ngi ànd ak président Macky Sall di jël samay moyens di ko ci def lépp ngir bëgg mu am ndam moo tax sëñ Dan mi sama mag sama xarit la sama lépp la fu ma woo damay wuyu sëñ Dan lii nga sumb yàlla na nga ko àggale ci barke Seexul Xadim ñun mbooleem jigéen ñi ñoo ngi topp ci ginnaawam di ànd ak moom man mii di wax ak yéen formatrice laa formé naa lu ëpp junniy junniy nit te te sama moyenu bopp laa ko defee ngir ànd ak président man suñ dan moo ma day ma ànd ak sama mbooloo ñëw gi nekk ci ginnaawam man fu ma taxaw samay nit taxaw fa ndax sama moyenu bopp laa leen formé ñu ànd ak man fu ma teg sama tànk ñu topp ko te ñun ñoo ngi ànd ak dan pour jàppale président Amadou Ba ñun ñoo ngi ci ginnaaw mouvement mag lañ nekk ñoo ngi ànd ak dan fu mu taxaw rek ñu taxaw fa. ñu ngi nuyu sama frère Mouhamadan. mais ñu nuyu nag suñu frère Mouhamadan Mbour. ak mouvement bi mu ànd. ak boole mouvement bi ñu ànd ak ñoom ñëpp. di nuyu waa salle bi. mais di nuyu waa salle bi yëpp. te di leen masawu ci xaar bi. mais te di leen masawu di leen jégalu ci xaar bi. yitte yee bari rek. mais yitte yi moo bari rek. waaye fii ñu ñëw moom ñor nañu. waaye fii ñu ñëw moom demuñu fu ñu ko gën a ñor. ñor nañu parce que dañuy wut. nee ñor nañu parce dañuy wut. waaye ñor nañu parce que sama rakk moo. nee ñor nañu it parce que nee rakkam xaritam moom moo woote muy Mahmadou Mbow. moo woote te xam naa engagement bi mu demee. nee xam naa engagement bi muy demee. amul du caaxaanul triché wul. nee na boobu ba léegi mi ngi coordonné ak man. nee na boobu ba léegi mi ngi coordonné moom. bëgg yëf yi normal. nee bëgg rek nekk yëf yi normal. te di leen ñaan nag. nee na di leen ñaan nag. waa salle bi yëpp. yéen waa salle jàppale ñu. ngeen jàppale ñu. inverser tendance. inverser ndax fu ñu nee Touba rek. fu ñu nee Touba rek. fitu nit ñi xaw a yëngu. nee na nit ñi dafay xaw a yëngu. waaye xam naa ni bu ñu àndee. waaye ak ànd nag ak suñu coordonnateur bu baax bii di Mamadou Mbour. am yaakaar nee ci am yaakaar bu baax a baax. te di leen jot leen. nee di leen jot tuuti nee na ak sa Amadou Ba. ak lu yóbbu la candidat Amadou Ba. waaw ne ñu ngi leen di seet bu baaxam a baax. ñu ngi leen di seet di leen sant di leen gërëm seen mobilisation. bi. ak engagement bi nga xam parce que loolu rek moo bi. mën a may ndam. moo ñu ñoo ngi leen nuyu yéen ñëpp kenn ku nekk ci turam ak santam. di jiital ci nuyoo bi Serigne Mountakha Bachir yàlla na fi yàlla may ko mu yàgg fi loolu te wér mën a li euh, àggale li mu bëgg a liggéeyal Sëñ Touba ñun nag 2024 dafa dafa nekk euh, année charnière fi ñun. te li xew ci réew mi bu bëgg réew mi war ngaa jël position war ngaa jël position assumer ko bu baax a baax parce que li ñu gis ci réew mi nii bu ñu seetaanee ba mu dugg ci loxo yoo xam si waru ca dugg incha ci kàttanu yàlla danañ ko rëcc choix bi gën a baax nag gën wóor ci Sénégal mooy Amadou Ba dëkk bi nag bu ngeen ko joxee ñoo xam si ni ëllëg bu ñëwee dañuy fayantoo di xeexante ci éternel recommencement ci la nekk man nag li tax ma jël Amadou Ba comme euh, candidat dama ko jàngat waxtaan ak ñu daan liggéeyal ñi daan liggéey ñoo xam si ni sax vraiment bokkut ak ñoom camp ñu wax ci moom lu baax ak ñoom ak i mbokkam ba gëstu ko bu baax aussi tamit koo xam si ni capitalisé na lu bëree bëri ci vie publique mosuma dégg wala ma liir benn propos bu déplacé boo xam si ni maanaam jëme na ko ci kon kooku ku am respect ci doomu aadama bi nag nañ may ko mu dugg ci loxo xal euh, ñi nga xam si maanaam seeni wax neexul seen jëf baaxul te Amadou nag vraiment c'est la définition de la compétence c'est la définition de la vision bi li président Macky Sall euh, doon doxal ci dëkk bi jàpp naa ne moom rek moo ko mën a nañ may la diku jël réew mi di ko jox ñu ko war a jox ko joxee tamit dañuy dañuy regretter rek nañ ko nangu nañu jël suñu responsabilité ñun ñëpp nañ jël suñu responsabilité ñun ku toog di seetaan nag ba mu dugg ci loxo yu wëkk a dugg bu ëllëgee lu xew réew mi yow ci la. ñu ngi remercier tamit aussi mbootaay jigéen ñi responsable famille seen taxawaay rafet na lool macha allah te ñu remercier aussi tamit jeunesse bi soxna ñaata ñu ngi lay yóbbante ci soxna Bini. jigéen ñi tubaab yi nii ñu jërë jàppale rek waaw waaw ñu jërë tey ay jàmbaar dëkk ngi nii ay góor dëkk ngi nii di ko wax tamit Touba su ñu koy moo tax te daara yi dañ fee bari trop dañu li ñu nekk yaayu kon nag wax ji mën naa bañ a gudd di tàllal sama loxo responsable politique yi nekk ci département bi ñëpp nañu ànd booloo parce que kiiw 2000 euh, élection 2024 bi c'est un combat d'arithmétique. Ou les opérations valables pour la victoire demeurent l'addition et la multiplication. buñ bàyyiwul division yi ak këral intestine du ñu yóbbu nañu ànd booloo nekk dans une dynamique unitaire comme ni ko docteur Abdoulaye Niane di prôné ak euh, l'honorable député Matar Diop ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp puisque dafa gudd di sant aussi tamit la presse particulièrement Babacar franchement moom moo coordonné lii lépp ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax euh, affaire bi sax mënoon naa gën a rëy nii mais dañu nekk ci période électorale am na loo xam si nii tey par exemple tey mënuñu ko suñ ko bëggoon def sa préfet du ko nangu mais mobilisation bi mënoon naa ëpp ñi ngi sant aussi tamit samay mbokk ci wàllu kër yaay ak ci wàllu kër baay di leen sant bu baax a baax baax di sant naa leen bu baax a baax sant aussi tamit la vraie Dali Ngor soxna Aliou Mbaye na benn conférence de presse boo xam te ni la semaine dinañ wax Babacar mu convoqué presse bi incha allah dinañ def benn conférence de presse boo xam te ni au nom du mouvement Maam la incha allah. di sant tamit les communicateurs traditionnels griots yi le micro central sant nañ ñëpp liggéey bi rafet na te au soir du février. li solo si mooy carte yi balaa midi na Amadou Ba dégg monsieur le président. Amadou Ba Amadou Ba Amadou Ba Amadou Ba